Mythiculture bët sebbi ci diwaanu ndakaaru gannaaw kon taw yu bëri yu fi rot guddik biig tax kon dëkk bi soppi melokaan ndox yi taa fu nekk dem bekk dikk bi moom na la ko yàlla nëbb concours général 2019 ñi ci war a jot a tey kon euh, la leen ko président Macky Sall war a jébbal ca Grand Théâtre waaye seetlu gi moo di jigéen ñi ñoo ci gën a ràññeeku ñoo jël itam raw gàddu ga dinañ ko toppandi ci biir Midi Culture résultat bac ak BFM 2019 lépp leer na ponum pir la dàq na pon waaye pon dàq na ko dàmbo ci di secrétaire général u CUSEMS authentique jàpp ni kon jàngalekat yak waajur yi am nañ ci wàll waaye lu jiin njaagate nguur gi mooy njaak li mbokk yak leneen buñ ci noppee dinañ ci boole nee ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagle aada ak cosaan gëstu bu yaatu la ñuy def kon ci ay artiste peintre ba ci kon euh, ñoo xam si tamit euh, dañuy yëngu ci wàllum tatouage na mu tàmbalee nax saaya li lee di fuddan euh, cosaanul yeelaa ca Fuuta nataalu Mali Njaay fara calcal ak gan gi mooy buural midi culture ñu ñaanalante daaw dëggay moo nekk ci machine bi Mediculture Serigne Saliou Seck moo ciy feggoo Kati Ndiaye ñoom ci mbégte contentement bu mag di leen ngi noonu kon nañ leen ko waxee ca bopp rek la ñuy duggee ci yaatal gi ak Ndakaaru mi jot kon ci euh, tawam yu njëkk ni ki guddik biik ba tax na rek li nga xamante ni moom moo di ñàkkum assainissement tax na rek ñenn ci euh, dëkkuwaay yi tàmbale rek daal di taa ni ki euh, guddib mercredi jàpp tey jili ci jeudi bi nag la taw gu bëri nag daal di wàcc ni ki Euh, tey ci suba waaye ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di askan wi am nañu ay jafe-jafe ci euh, dem beek dikk bi yenn ci quartier yi nag fi mu nekk nii ndox ma rek ma nga fa daal di taa ba tax na fi mu nekk nii mbir yi jur na ay embouteillage mi ngi noonu kon from euh, régional de production ñu ko waxee woon kon ni te waa agence internationale de plaidoyer nii yel waxoon ni dañ koy amal ñetti fan door nañ ko niki ki démb door nañu ko seen thématique nag ren mi ngi daal di tudd jeunesse urbaine ak it assainissement loolee ca centre hip hop bu Guédiawaye la ñu koy daal di amal nekk benn forum boo xamante ni ci ah, ñetti fan nag lañu ko nar amal ànd ceeg ñi nga xamante ni ñoom ñoo di mouvement citoyen Y'en a marre nañu lu seen coordinateur bu mouvement Y'en a marre di Aliou ah, Sané yu mel ni ñun boo xoolee Y'en a marre par exemple fii ci Sénégal mbirum citoyenneté ñu ngi ci yëngu bu bëri ba ci fan yu mujj rek nii am benn film bi ñu fësal bu tudd sunu gox buy wane Y'en a marre ni mu àndee ak ay association banlieue bi ci mbirum assainissement mbirum amélioration du cadre de vie ak jëmbat garab donc forum bii nii daf ñuy permettre ci problématique assainissement que ñu jànkonteel ñu waxtaan ak ay experts ak ñenn ñi nekk ci domaine yi am ay weccante xalaat ci nan la suñu état yi di gérer mbirum assainissement au Sénégal ak yan difficulté la ñuy jànkoonteel déchets yi nga xamante ni bés bu yàlla sax nit ñi ñu ngi koy produit muy jóge ci kër yi fan lay aw ak fan la jëm est-ce que du li nga xamante ni day dolloo si encore pour indi loraange askan wi ak yooyu parce que ñuy wax ci système par exemple déchets yi génn camions yi ñëw di ko jël waaye am na yenn zone yi nga xamante ni bàyyi peel yi la cest à ay nit la ñuy ñëw ñu gas foos ak yooyu donc yooyu noonu yëpp nan lay doxee il y difficulté des impact yan incidence la am ñun ci suñu santé ak suñu dund ñun population donc ça nous permet ñun mouvement citoyen au Sénégal ak Afrique Nous allons maîtriser lolu ñu xam ban taxaway lañ ci wara mëna am déjà pour ñaar citoyen yi ci yan comportement la wara mëna am parce que am nañ ci ay responsabilité aussi waye ñu ñu jité aussi ça nous permet ñu mën leen exercer pression ou en tout cas ñu mën di am ay rapports yi nga xamanteni ak ñom dinañ di def ay propositions citoyennes dem dans le sens d'améliorer gestion assainissement ci mu nekkoon kàddu Aliou Sané nekk coordonnateur mouvement Y ngeen di wéy di déglu di Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal ñeenti simili. King FM première radio digitale du Sénégal. concours général 2019 bi tey jii la ñuy jot ci seeni i raaya. foofee ca grand théâtre national nag lay daal di amee lu toll ak téeméer ak juróom-ñaari ya ñoom ñi lay dinañ leen primé jigéen ña nag ñoo nga daal di toll ci juróom fukk ak ñeent mu xàkki mi ngi noonu kon Umu Hakimu ci jombul dinañ ci dellu si ci kanam tuuti ci wàllum njàng ak euh, kon yemb na Umu Hakimu ci ak concours général bekk kon ñi war a jot seen i ci kanam tuuti ca Grand ñu teewlu ko. remise des prix concours général ñu di ko amal tey jii ci teewaayu njiitu réew mi président Macky Sall ñu ciy sargal téeméer ak juróom-ñaar ndongo daara jigéen ñi fës ci lool ñu seen lim toll ci juróom fukk ak ñeent bu dee ci classe première yi ñu ngi toll ci fanweer ak ñaax ci classe terminale yi seen lim toll na ci ñaar fukk ak benn ren ci fàttali concours général bi dañ ciy sargal ndongo daara ak lycée yi ñu gën a ràññee waaye it dina permettre ñu suivre lii du évolution éducation nationale daaw jaari sow lañ ca gënoon a ràññee mu jóge woon ca lycée d'excellence scientifique bu Diourbel te ren tamit ña ko fay xaar bu baax ndax résultat yu am solo ya mu am ca baccalauréat ba ndaje bi dinañ ko amal tey jii ci Grand Théâtre ci teewaayu président Macky Sall. Oumou Hakim Athie ci wàllum njàngale ak njàngale la ñuy des ba léegi ak baccalauréat 2019 ak BFM lépp yemb na léegi. ba tax na rek lii di euh, taux de réussite bi daal dina ñu jàpp ne xaw naa tane ba tax na rek kii di euh, Dame Mbodj nag di ñaawlu li ni mel moom a secrétaire général bu euh, CUSEMS authentique nag mu ngi daal di xam le ni professeurs yi waajur yi ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di état bi ñoom ñëpp am nañ ci seen part de responsabilité Dame Mbodj ci micro Serigne Saliou Seck kii kese la ju joxoñ ko baaraamu fi ma bàyyi ka ci res te parce que da ngaa tëddewul njaaxaanaay parce que ja école man damay wax ne dama ko caaxaane jàng ak njàng la donc du ma làq du ma singale kenn li may wax mooy ku ci nekk da am loo ci war a def muy état muy jàngalekat muy ndongo yi muy waajuru ndongo yi du ma ne waajuru ndongo yi nag mooy askan yi kon nag ku ci nekk da ngaa am loo xam ne moom nga ci war a dox jéem ko ci moo tax ñu ñuy wax école communauté maanaam école askan moo koy moom kon nag ku ci nekk li nga waroon def lu ci bëri defoo ba ma waxalee yàlla jàngalekat yi effectivement bu ñu jëlee jàngalekatu léegi yi di ko ak ya nga xam ne amoon na am na différence naam ñoom recruté wuñ seen bopp ay yoo xam ne leen jàngaleloo et cetera loolu ku ne amul benn jeexital ci système bi da ngaa ragal rek man nag jiite ay jàngalekat sax ma ragal wax li ci am mais jàngalekat yooyu nag dugalum seen bopp ci école yi dañ leen faa dugal te leen fa dugal moom mooy état bi moom mooy jël ay jàngalekat di ba tey état bi day seen yoon nekku ci ku ci xëy euh, yaa ngay wuti loo am pour mën a dundal sa njaboot ba taloo dem sa école ba sa doom di jàngale lan moo fa xew élèves yi tamit actuellement ci nouvelle technologie yi nañ ni nan daan jànge jàngeetuñ ko ku ci nekk yaa ngi nekk di jël temps ci loo xam ne da nga ko waroon dugal ci sa jàng pour que nga gën a xarañ donc man kooku dañ ne la yow alalu réew mi yow lan ko jox xoolal fa gën a baax nga dugal ko fa teg fenn mënta ëpp njariñ njàng meñ njàng leen parce ku amul njàngale ak njàngale mu baax doo a am benn secteur boo xam da nga fa dugal ay sénégalais ak ay sénégalais yu xarañ. mu nekkoon kàddu yi euh, Dame Mbodj nekk secrétaire généralu CUSEMS authentique doon dellusiwaat kon ci résultat BAC ak BFEM yeeg kon ni mu tàggatémbee ci yenn ci ay euh, gox midi culture midi moo jot ba tegal juróom-ñaari simili ci aéroport international Blaise Diagne. bàkk boobee kon xibaaru bi ci réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Kumba ki nga xamante ne rek moom moo di seen président daal di ne génn àddina. Béchikayit Essebsi kon faatu na tey ci alxamis gi ñaar fukki fan ak juróom euh, ci weeru juillet atum nag mu ngi toll woon ci juróom-ñeent fukki at ak ñaar mu nekk nag benn figure clé rawatina ci wàllu transition ñeel démocratie ca dëkk ba euh, xalaatom nak ñi ko xamle di présidence bu euh, tunisienne bi ñu ngi ko def nak ci ben communiqué ay waxtu lata lolu nak daldi won nañ koy dalal ci hôpital militaire bu Tunis fofé sax ci service euh, bu soins intensifs lañ ko dalaloon démb euh, mu ngi faatu nak ci jamono jo xamné ay wér rek mo dess ñu amalat fa yenen élection falu njiitu rew moom président tunisien bi di Béji Kaïd hospitalisé won na manam entré won na hôpital ci fàttali ñaar fukki fa nak ñaar juroom ñaar ci wéru juin bu ñu génn ak it ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin maanaam daal ci euh, euh, semaine yu ñu weesu wàllu wér-gu-yaramam daal euh, sooxe woon na loolu al shabab euh, daal di nañu amal ab cong foofule ca Somalie ki nga xamante ni rek moom moo di maire bu euh, Mogadiscio daal di nay am ay gaañu gaañu juróom-ñaari doomu aadama ñàkk ci seen bakkan. kon maire bu capitale somalienne ba di Abdourahmane euh, Omar Ousmane moom nag ay gaañu gaañu la jëlee démb ci àllarba gi ci ab attentat suicide di bu amoon ca daluwaay administration ba ca Banadir nekk ca Mogadiscio juróom-ñaari responsable it faat nañ leen fa ci cong googu nga xam. xam ne mu ngi am nag ak diir rek laata ak teewaloon Nations Unies ci dëkk ba di James Swan eh, di ñibbi eh, kon eh, groupe terroriste bi di Al Shabaab ñoom dëggal nañ ni ñoom ñoo amal boobule attaque Somalie kon njaaxare daal la ñu nekkee ndax seetlu nañ ni révolte yi dafa commencé bëri ci dëkk ba ci fàttalikat yi nag groupe Al Shabaab ñu ngi jokk kon ci Al Qaïda attaque bi bokk na ci yi nga xamante ni bi moom lañ mujjee def bi ñu mujj def kon mu ngi nekkoon altini bi ñu weesu. ñu jeexalee ca RDC ak épidémie Ebola jamono ji ma ngay am doole foofule ca Bénin. kon épidémie Ebola di gën a lëmbee réew ma ci gox bii di Kanzuli nga xam ne bokk na ci gox yi nga xam ne ci wàllu wér yaram fa jàngoro ji gën a bëri lu lu yées ñaar fukki fan kon ñeent fukk ak ñaari cas kon recensé nañ ko euh, ci période boo xamante ni yàggul équipe yi nga xam ne ñoo yor wàllu riposte ba maanaam xeex jàngoro ja nag ñu ngi dem ci gox goxaat yi rawatina ci poste de santé yi ngir xool ñi nga xam ne njort nañ ni am nañ jàngoro ji waaye li di seen eh, jafe-jafe jamono jikkat yi mooy askan wa ñoom dañu xaw a méfiyewu maanaam dañuy ragal ñii di ñëw ne ñoom ñoo yor riposte ba ba tax day am jafe-jafe trop pour xam ñi nga xam ne ñoo am jàngoro ji yenn ci structure sanitaire ya di bërëbu fajukaay yi sax amuñu euh, protocole officiel bi nga xam ne moom lañu war a taxawoo ki am jàngoroy Ebola ba tax juróom ci ñoom daal bañ seetloo ni amuñu formation bu ni mel kon dañ leen daal di tëcc kon kat yi fi lañu yëm ci xibaar yi ñel bitim réew cant ak ngërëm ñeel na la bu baaxa a baax Kumba Ba doon faram-fàcceel kon xibaaru biti réew yi xibaaru tàggat yaram ci top topp gannaaw bàkk bi lay doon le portrait du jour tout de suite le sport now sports kat yi daaw da xam naa dafa ndekkeegul Guèye la sant loole kon xibaaru ah, tàggat yaram yi lay yëgle ak ñun ci studio bi ah, papa ma jaxate Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou di nuyu tamit Kati Dia ak ñi ñuy teewlu. maa lay fay Papa Madiakhaté sax ñu tàmbali classement FIFA filé ci Afrique Sénégal moo nekk ca bopp Non, noonu la ko xamle équipe nationale bu Sénégal nga xam ne dafa ñàkk finale Coupe d'Afrique des Nations bi weesu ci Égypte diggam ak Algérie moom moo wéy di des ci bopp classement bi ci continent bu Afrique FIFA fësal ko ni ki tey jii ci euh, suba bu dee nag ci ranking mondial bi la euh, Sénégal euh, gulet muy jël ñaar fukkeeli place bi tolloog Pologne am junni. ak juróomi téeméer ak juróom fukki euh, poñ euh, daal di nekk ci classement bi nga xam ne euh, ci àdduna bi Belgique Brésil ak France ñoo nekk ci ñetti place yu njëkk yi. ñu waxtaanee wàllum basketball lii di 17e édition bu Hope Forum tàmbali nañu ko foofu la ca Thiès. mu doon ab festival basketball boo xam ne dañ ci boole rek lii di wàllum tàggat yaram ak it njàng maanaam sport étude ñaari téeméeri ndaw yu góor ak yu jigéen seen at toll diggante juróom jàpp juróom benn fukk juróom-benni at ñoom eh, ñoo ci bokk démb jëm ajjuma eh, fas yéene nañu ci nag amal ab camp de basketball ab marché écolo maanaam jëmbat ak garab ak yeneen yu ni mel set setal naka noonu it ay yëngu-yëngu ci wàllu aada ak cosaan eh, projet boobu nga xam ne nag waa Sid Academy ñoom ñoo ko amal rek bokk na ca ay kàngam ci wàllu basketball fekk baax fii ci réewum Sénégal yu ci mel ne góor gi si Dieng Maurice Ndour ngañ de Sagana Diop ak Mactar Ndiaye. ñu jeexale ko ak wàllu ba lamb Eumeu Sène nag jamono ji ma ngay dànkaafu Modou Lo moom Eumeu Sène euh, ne jamono ji lenn rek moo nekk ci boppam bi muy euh, le bu boobaa dimanche ci stade Léopold Sédar Senghor moom roi des arènes bi mu jël revanche am euh, ci li ko Eumeu Sène daanoon ci seen combat bu njëkk bi ñu dégloo Eumeu Sène mooy du ma la wax rek xam nga tey jàmbaar nee naa la ñam naa victoire ñam naa défaite noggutu nañ ma ci làmb xam naa lu muy saf du dëgg bu rëy bu nekk bëri mu gaaw mu nga bëgg mu gaaw tam mu yéex sans dépend ci rek mais nag pare nañ ñaar yëpp combat jànk yëpp maa ko bëri combat yu mu nga ma ëpp combat mais combat yu métti suñu waxee suñu waxee rek te yàlla tax maa ko reñee combat bu nekk ak lu mu laaj waaw liggéey nañ bu baax a baax combat bi su déeree du wax ci moom mën nañ bëre deux jours fu mu ne nii mën nañ baax na incha allah yàggatul dimanche la rendez-vous lépp lu ñuy wax rek duñ def lu rafetal suñu kàddu parce que tey aussi dañu war a nekk euh, exemplaire si dëkk lu dëgg euh, 28 mais kutaki sepie inshallah mu nekkoon euh, Eumeu Sène euh, di euh, njiital écurie bi di Tay Shinger nekk roi des arènes doon def ni ki démb open press am ginnaaw moom nag tey jii ci alxames ji kii di Modou mi mu fas yéene mooy ak taskatu xibaar yi ngir wax moom it la mu nar ci googule combat combat googu sax ci fàttali ñu fas amal dimanche gii ñu jëm ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet ca stade Léopold Sédar Senghor fàttali ne ñu ngi ko dara jaale artiste chanteur PCA bu groupe Futur Média fii la ñuy yemale xibaaru tàggat yaram yi. jaajëf Pam ma jaxate Sarr xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram gi. xibaaru caada koy tàmbalee kon ak ndaw rawatina kon jeune artistes yi nekk ci banlieue bi mu mel ni ñoom amuñu kenn ku leen jàppale. loolee tax rek ba mënuñoo wane seen bopp ki ko xamle rek moom moo di peintre bi di Pape Demba Seck moom juddoo ca Pikine Icotaf li mu bëgg rek moo ñu tabaxal leen ab galerie d'art goo xamante ne rek dinañ ko mën a jëfandikoo ci seen localité Papa Ma jaxati sax. boo ne banlieue rek sa xel day dem ci maanaam manque de moyen quoi dëgg la n'empêche que ni gars yi ñu mais des fois da ngay gis koo xamante ni par exemple day bëgg tableau sax pour pour commander la ko du am xaalis boobu mais da lay leer ni yow au fond kii bëgg na ko quoi des fois dañ ciy jàpp def te yàlla tax quoi en plus suñu autorité yi aussi wax dëgg yàlla war nañu mën a jàppale quoi ñun ñi nga xamante ni yàlla dafa def ñu nekk ci banlieue bi ah, yàlla am lu ñu may ñu war ñoo accompagner ci yu bëree ay projet exposition wala quoi vraiment loolu moom soxla nañ ko loolu ba pare en soxla ay local yoo xamante pour artistes yi la ak xam nga jeune talent yi fi nekk waa leen soxla nañ ko trop sax waaw parce que loolu noonu luñ ñor la trop trop trop mën a amaale fi benn galerie boo xamante nii nañ ci mën a former ay boy former ci ay tout tànk ay xale yoo xamante ni côté art intéressé na leen organiser ay exposition yoo xamante ñoo koy def ci banlieue bi aussi mu nekkoon kàddu ya Demba Seck Pape Sarr moo ko taataan dañuy wax ci leneen kon fanweeri at gannaaw bi nga xam si groupe misaal bu Padoa taxaw na. mu nekk rek groupe boo xamante ñi ko formé nag ay xarit lañ ñoom ñi le nag wane nañu seen bopp bu baax jëm ci wàllu musique afro marqué seen génération ak ñetti album yoo xamante rek génnee nañu ko donte ku ci nekk a ngi def carrière solo ñi le rek dañuy dal di gisante di booloo di def ay wéy Papa Madiakhaté sax ñoom ñuy wax li nga nga xamante rek moom moo di parcours

Racine ak Samba Lawbe jamono yooyu seen at toll diggante fukki at ak juróom-ñaar jàpp ñaar fukki at sos groupe bii di misaal tey am yaakaar ne daañu def carrière bu mucc ayib bu ni mel ne bu Youssou Ndour waa Turekunda wala xalam ngir mën a def leneen lu mooy lu ñu xamoon ca jamono yooyu muy mbalax waa groupe misaal jël beneen yoon ci wàllu musique ak style afro boole ko yeneen sonorité juróom-ñetti at ginnaaw loolu ci ab festival bu nu bokkoon ca seen album bu njëkk Ousmane claviste le ci groupe bi. li déclenché après carrière groupe de manière euh, plus formelle moi bi ñuy euh, bi ñuy sélectionné pour ñu la première fois pour un groupe sénégalais dem festival du printemps de Bourges. donc après ñu ñu suis en Occident de suñu musique propre groupe ah, après ça nous a ouvert d'autres opportunités qui nous ont offert des perspectives après pour nous mener a produire sur le premier album def pour ginnaaw leer di album bu juróom-ñetti titre bu ñu génnee ci atum 1996 ñu teg si ñaareelu album ci atum 1998 di salaan ak fukki son ci atum 2000 groupe bi daal di takkal ay yëngu-yëngoom Wozkali mooy lead vocal ba. dans ma tête je, me dis chaque fois que musicien bu nekk ci benn groupe kese des fa doo xam li xew mais ça dit, le problème c'est que des fois c'est difficile de gérer un groupe parce que les gens ne sont pas là en place. On se dit que le groupe n'est pas fini. Donc, mais on va se retrouver, si tout le monde peut, on peut faire des albums. mais après chacun doit retourner dans ce truc. ngir génné benen album ci atum 2009 muy kalama ndam lañu ci am tax ba xarit yi ne ñu tok lu yagg te duñu génné ab album donte ne ku ci nekk yaa ngi bay sa waar ci sa wàll lu ëpp fanweeri at ginnaaw ba ñu sosee groupe bi melomaan yi di wëy di wayantu yenn ci way yi nga xam ne groupe bi fekk baax ca Padoua mus na ko def te way yooyu ci xayma ëpp téeméer ak juróom fukk buñ la ci tegal rek nga ne bii moo dàq sa morom Yamagawa. Pape Madiakhaté Sarr aada ak cosaan la ñuy wax ba tey rawatina fuddën ak ni mu tàmbalee naax saay tatouage moo fa jaar génération bu bees bi nag ñoom tatouage moderne bi la ñuy di euh, jëfandikoo mun doon nag euh, li nga xamante ni ñoom ñooñee loolee leen neex waaye nag fuddën doon na loo suñu yi fi di bàyyi nak njëriñ la mu doomi aadama rek ñenn ñi nga xamante ki di Aminata Ba daje nañoo ñoom nag ñu ngi daal di xamle ne ndaw ñi dañoo war ci li nga rek ay loxo ak tànk yu ñu fuddan ak ay dessin yu rafet ñu daawoon koo gis ci lu bëri ci mag ñi ñaari soxna yi ñu la ci mbeddi ndakaaru yi ak seeni fuddan ñu ngi dikkaat ak ñun ngëneel yi ci nekk. te maam yi moom yëg ak tan fuddan moom nitu yàlla dégg moom moo koy def ndax fuddan boo ko dee def sa ndax fuddan ci arjana ñu ne foofu lay saxee sax parce boo ko dee def sax dégg naa boo boo ci deewaale kenn ci soxna yi du yoo ci turu Ndoumbé Seck bàyyi lii di fuddan ndax rek tatouage yu xale yi xewal léegi mën na indil ay gàllankoor ci gu yaramu nit ki. moo tax léegi bi ñu ko bàyyee ba léegi gis ne kenn ku nekk say tànk day métti ma nga moom affaire tubaab la mais du aada léegi nag moom lañ topp a topp topp ba mag ñi sax da gis kuy tatouage. soxna yi ñu ngi woo xale yi ñuy fuddanu ndax rek dafa bëri ay sëqe yu ci làkku. dem loolu moo seen tànk di dëgër laa leen di wax. maanaam nga defloo leen ko sax du yomb buñ ko fonkee daal dinañ gis njëriñ fuddan nekk loo xamante ni lislaam da ko santaane waaye tey jii ndaw ñi dañ koo bàyyi ndax rek tatouage bi. Aminata Ba ñu wax ci leneen euh, rawatina yee Yella nekk kon cosaan lu bàyyeekoo ca diwaanu Fuuta mu nekk rek euh, benn euh, musique pulaar boo xamante ne rek Yella doon loo xamante ni pulaar yeeg ñi nekk ci àddina bi yëpp daal dinañu koy bëgg mu nekk rek woy boo xamante ni musique boo xamante ni ñii di griot ñoo ko doon wéyal ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di seenu buur ñu teewlu ci du Sow yela di ab xeetu poem, wala musique pulaax am doole lool ci culture pou pulaax ndax place bu am solo bim ci am yela lu ci ëpp daanaka ay jigéen ñoo koy faral di woy xeetoo ci askanu gawlo ngir nettali jaloore yu mag yi am ci taarixu fuuta ak it bundu yela ñu faral di ko amal ngir bàq wala gañ nit ki ngir delloo ko wala fàttaliku fi mu bàyyeekoo maanaam askan wi mu bokk yela ñu mën ci nemmeeku ñeenti façon bu njëkk bi yela CCB di way lépp lu ñeel taarixu Malik si taxawaloon lii di état bu bundu ci 17e siècle yela CB ñu jaglel ko daniyankoobe yi maanaam modu modu yi moom daanaka moo wéy sax ba jamonoy Cerno Suleymaan bal am na it yeelaa tooroobe ñu jaglel ko ñi nga xam ne ñooy toorodo yi maanaam ñi ñu santale lii kan wan akit ñeneen bu mujj bi yelaa fulbe sow ba Ka Diallo di yenn si ñu mëna lim ci clan yi nga xamné ñom lañu ko lon muy fatali it jaar jaar bi nga xamné ki di Samba Gela Djegi amon nako gawlo bu bundu ak gawlo bi ko futa danaka jafé na lol ñu bokk li nga xamné modi way li di yela ndax histoire bu futa ak bu bundu bu si nek dafa am ay batam ndax histoire yu wuté yela di teki ñaan wu nangu ñukoy faral di dégg si yi nga xam modi ciet ngenté wala it su suñuy amal li nga xam ne moo di waajal dugub néegu góor ak it yeneen leket ak i yenn ci xeetu gurt di rythme yella doon li nga xam ne moo doon gunge jàmbaar ya doon dem si xare ya jamono ji yella ñu mën si ràññee ay baatu góor gannaaw bi nga xamee ni ñi di jigéen ñi ñoo ko daan faral di woy góor ñi tàmbale ko ak seeni feem ndax yella bi ñu si dégg yeneen instrument yu mel ni réeti walla xalam dem sax ba ñu mën see nemmeeku li nga xam ne moo di musique moderne mu demit ba wër àdduna ak ki nga xam ne moo di le roi du yella Baba Baby Mal. jaajëf Mamadou Sow doon nu dellu si waatal kon ci cosaanul Yella mi di culture ñu jàll ci nataal bi. tey ñu leen di defal ab fàttali jëm ci Malick Ndiaye. ñu gënoon koo xam ci turu euh, malik Ndiaye faracal-cal mu ngi daal di juddoo ca Louga moom malik Ndiaye app euh, comédien la woon yàgg na bëggeel ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di euh, sénégalais mais mu ne ñu ngi moo ñuy defal portrait woo. ku dégg baat bile xel dem ci malik Ndiaye faracal-cal maam Malick. ma nga gane àdduna ca atum 1939 fële ca Louga couturier de formation Malick Ndiaye mi ngi door métier tailleur ci atum 1970 ca capitale bu Ñaambur ci ndorteelum atum 1980 Malick Ndiaye bàyyeekoo fële ca Louga ñëw fi nga xam ni mooy Ndakaaru ca banlieue bu Pikine ngir door li nga xam ni moo di carrière comédien ak waa troupe jamonoy tey ca troupe boobee sax la joué téléfilm bu njëkk di ku am ndey ak ku amul ndey mënuma ko ñàkk wax su ma neexee kañ sama bopp bu ma neexee tàggee sama bopp waaw ndax bu ma jotoon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ci sama diggu doole nëgëri daan na fekk ma jeexal waar bi ba mu jeex tàkk ba foofee sax lañ ko joxe surnom boobu di fara calcal juróom-ñetti at ci kanam kii di Malick Ndiaye créé li nga xam ni mooy troupe boppam ñu gën koo xam ci Libidor troupe boobee daan yëngu ci ay jamono ci théâtre radiophonique Malick Ndiaye fara calcal thème yu mu daan abordé ci ay pièces de théâtre mi ngi ko daan inspiré woo ci dundinu askan wi moo tax mu daan faral di wax ni théâtre àdduna la te rôlu comédien mooy reetaanloo askan wi en même temps di leen yee ak di leen xamal amal artiste bu mag bile wuy ji na sunu boroom benn bésub korite gannaaw ba mu tëddee feebar lu yàgg ay at boobaak léegi xar kanamu artiste bile mënoon lool li mu daan def des ci bopp téléspectateur yi may mun a ñing midi culture ñu jàll ci gan gi. midi culture ganu xibaar yi. tey ñuy dalal Mamadou Diop. mu nekk directeur festival Kaddu Yaraax waxtaan bi mu ngi ko si kek di sa Mamadou Diop maa ngi nuyu yow nag euh, ngay suñu gan tey ci Midi Culture directeur du festival sénégalais bu théâtre forum bu Yarar. est-ce que mun nga ñu wax euh, festival ani lan la utu ndax eh, bii mooy fukk ak juróomeelu yoon liñ koy amal euh, mu ngi xewee fii ci Yarar? ñi koy amal moi groupe bu tudd kàddu Yarar. festival bi mu ngi dajale mboolem ñi nga xamante ne dañu yëngu ci lu tudd théâtre forum ci àdduna bi wante niñ ko xaajale mom moy ñi gëna bëri wa Sénégal ñu doon pàcc bi ci top wa Afrique lañu doon li ci dess mom la adduna bi di di boko gina lolé est-ce mën nga ñëw tuuti ci programme bi les festival. dafa am euh, lu ñu woowee atelier de partage atelier de partage moom mooy. saa euh, suba suné ñi nga xamantene ne ñoo ëpp expérience ñi nga xamantene ñom dañu joggé yeneen réew wala ñi nga xamantene ñom dañu dawal lu ñu wowe ay projet culturel ci at bi ñom dañu dajal né sen euh, expérience yoyu daal di koy waxtané ak ñi nga xamante ñom ñoo téwé ci festival loolu chaque chaque matin la suba bu lool da fay am inshallah su su démé ba nga xamante waxtu añ jot na lata ñu def lu ñu wowe ay causerie causerie nak dañu seet ay thématique yi nga xamante dañoo japp né ren ci at waaw ñoo gëna fëss ci actualité politique ak actualité artistique ñu def ci ay waxtaan conférence yi mu ngi mu ngi nii la demee am na benn bu ñu woowee lu ñu wax comité de relance quoi ci wàllum théâtre dafa xew fii ci Sénégal boobu Kader Diarra moom moo koy def am na benn waxtaan bi ñu woowee culture urbaine lu mu tekki ak fan la ba fan la yem amul Fall moom moo koy def voilà donc yeneen affaire yi aussi moom mooy lu ñu woowee théâtre yi loolu chaque euh, après-midi dafay am moo xam ci montagne table waalo ga an yeen ba ci yara kip quoi donc yooyu nekk na yi nga xamante ne def nañ ko léegi daal su guddee aussi ñu def lu ñuy wax interaction artistique quoi maanaam ñun ak yeneen interaction maanaam ñi nga xamante ne dañu def cinéma comme ku mel Moussa Sène ab film moom boobu tudd yoole dañ koy dawal après ñu def ci ay waxtaan euh, Thomas Grand film moom boobu nga xamante ne moom moo tudd Poisson d'or Poisson d'Afrique ñu def ay waxtaan après ñu ñu ñu ñu projeté ko def ci ay waxtaan. ani ban anam ngeen di defee seen théâtre. moom mooy yenn mbir yi nga xamante ne ñu jéemoon tollale théâtre yi nañ ko jëma a weesal foofu ñu tam ñu jéem a naan quoi toll nga xamante ne fii la ñu fekk ni sax bon te instant bi mën nañ jàpp ne seen réellement wala seen taxawaay wala ni leen considéré moo gën a am solo ko ñun ñu ñu considéré voilà donc mu ngi commencé le vingt quatre bi maanaam alarba

drive me crazy, man. Son, na, na. So, so, son, na, na. You control my mind, yo. Son, na, na. You control my life, yo. Son, na, na. You drive me crazy, yo. Son, na, na. Mingi nonu kon mbokk yi foofee la ñu yam ak yéen ci euh, midi di la jaajëfal bu baax a baax Kati Ndiaye maa ngi lay jaajëfal bu baax yow Serigne Saliou Seck di jaajëfal mbokk auditeurs yeeg internet yu ñu doon suivre di leen jox dig daje suba incha allah ci midi culture cant ak ngërëm ñeel na bu baax a baax tamit euh, Daouda Gueye mi nekkoon ci euh, machine bi production lo digital Yacine Pouy léegi-léegi kon Baye Cheikh moo ñëw woyal King Feeling lu mooy looloot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation midi ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg midi